analyse bi nga xam ne moom la ci euh, nit ñi def euh, su ma nee analyse nag mooy ku nekk mën nga analyser bu accident amee nga ne ah man kat jàpp naa ne lii moo ko waral mais jàpp naa ne ki nga xam ne moom moo am moo na def constat mën a génne exactement ne accident bi nii la demee mooy ki nga xam ne moo dressé PV bi euh, muy gendarmerie walla muy police ñoom ñooy def constat. xam le ne effectivement accident bi kat euh, lii moo ko waral c'est-à-dire excès vitesse la woon wala ki doon dawal dafa tàggoog sagoom wala book euh, dafa am défaillance technique boo xam ne nii am na ci oto bi loolu yëpp ki nga xam ne mooy def constat moo koy moo koy moo koy déterminer. defoon nañ conseil interministériel ba jëloon ay dogal mu mel ni nag saa bu accident amee rek ci la euh, ñi nga xam ne ñooy gouvernement bi di jóg. di jël ay dogal te ñun wax nañ ko waxaat ko waxati ko tànk tooguñu diagnostiqué li nga xam ne ni mooy indi accident yi ñu jim ko moytu globalement accident du fi jóge état de route bi nga xam ne moom lay jaar beneen facteur la ci beneen bi ci des aussi mooy kon yan condition la amee ay client fii à dakaar moom bus bi chauffeur bi yan condition la amee fii ay client ba yóbbu ko loolu yëpp ay facteur la ci réglementation ak réguler bi nga xam ne war nañ ko réglu secteur transport. assainissement bi ñu war a def secteur transport parce que bu ñu nee assainir secteur transport waxuñu rek ñu ñu génne kalandoo dañ ne ku warul def transport waroo ko def ku jaarut fi nga war a jaar waroo am permis